asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi lay nuyu leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube le canal des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur youtube vidéo yi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu ngi koy defal en wolof vidéo bi nag vidéo lancement formation bi ñu leen doon wax mini formation bi nga leen di wax muy tudd youtube solution youtube solution nag nekk mini formation boo xamante ni dañ koy def pour ñi nga xamante ni moo xam am nañ 1000 abonnés ba pare wala am nañ 4000 heures ba pare mais seen problème mooy problème mu réutilisation de contenu moom lañ mënul jéggi pour mën a monétiser seen ay canal moo xam ñi utiliser vidéo yi nga xam ne vidéo TikTok la moo xam vidéo Instagram la moo xam vidéo yi nga xamante ne ay waxtaan yu am ci internet bi la nga xam day tombé ci domaine public muy sëriñ yi di def ak yu demee noonu conférence yi moo xam mu nekk vidéo yi nga xamante ni dafay nekk li nga xam ne mooy Creative Commons lu mu ci mun munti nekk vidéo yi si bëri am na ñu bëri ñu koy jël di ko dugal si li nga xam ne mooy euh, YouTube surtout vidéo TikTok yi canal TikTok yi problème bi ñuy am ci utilisation de contenu moo gën a waral ma defoon ay gëstu ak ay xalaat ci li nga xam ni mooy utilisation de continue ban solution laa ci mën a indi boo xamante ni ñi nga xamante ni dañuy participer ci formation bi nga xam ni mooy YouTube solution dinañ ko mën a am pour di mën a contourner barrière utilisation de contenu euh, formation bi nag formation la boo xam ni formation participative la mooy lan mooy formation boo xam ni pour nga euh, mën mën ci am accès mën ko seetaan pour mën a éviter réutilisation de contenu wala nga am problème utilisation contenu ba ko saafara dafa am loo xam ne moom ngay génnee moom ngay participer lool ngay participer nag dina toll si montant wu douze mille francs douze mille francs mooy participation bi nga xamante ni parce que dañoo bëgg ñëpp mën ci am accès ñëpp mën a am accès ci formation bi ñëpp mën ko utiliser ñëpp mën a monétiser seeni canal euh, YouTube te comme euh, ñu ngi def ay vidéo gratuitement ci canal Galsen Tube bi euh, di répondre tam gratuitement ci message yi ci whatsapp bi euh, dafay am yoo xam nag ay technique yoo xam ne ay technique la yooyu mën def ci youtube yoo xam ni du ñu mën a jël vidéo yi rek def ko mu disponible noonu ci youtube gratuitement ñëpp di ko mën a parce que ay vidéo lay nekk yoo xamante ni ñii si am accès dañu bëgg mu nekk ñi nga xam ni toll nañ ci monétisation am problème mu réutilisation de contenu ñoom lañ bëgg ñu jot si su ko bu ñu participer ci formation bi dinañ mën am accès ci vidéo yooyu pour mën a régler seen ay problème ñi nga xam ni tam dañoo da nga da nga fekkee tam da nga ubbi canal bu bees canal bi nga ubbi ci vidéo TikTok nga bëgg a lancé wu wala ci da ngay dem jëli Creative Commons wala ci vidéo Instagram wala par exemple tey nga bëgg def canal boo xam ne spécial sëñ Samba nga ko ko def wala spécial sëñ Abdourahmane Mbacké wala spécial Iran Ndaw wala spécial Ali Niass wala nga def ko spécial oustaz Alioune Sall wala keneen wala keneen wala nga def ko spécial par exemple ay waxtaanu ma Abdou Aziz baax Dabakh wala keneen yaa xam ku munti nekk waxtaan boo mun munti jël ba ci def canal YouTube li si ëpp soo duggee ba dem euh, ba am 1000 abonnés 4000 heures réutilisation de contenu mooy bloqué mais vidéo yooyu benn par benn bu si nekk dinañ la woon coppite tey ñu ciy def ba nga xam ni dina wuuteeg yeneen vidéo yi am ci YouTube ba boo waree monétiser benn problème de utilisation de contenu doo ko am incha allah rabi loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci contenu formation bi. dina ñëw ci comme niñ la ko waxee vidéo TikTok wan la montage yi nan ko koy dèjà rek dañ lay njëkk a ci téléchargement yi nan ngay télécharger vidéo TikTok parce que ñu bëri koy télécharger mooy am ay logo TikTok da ci koy télécharger logo TikTok du ci am dañ leen la wan fan ngay mën a dem ban site internet ngay utiliser pour télécharger vidéo TikTok mën nga ko télécharger en ligne sans nga installer benn logiciel wala application bu dee sa téléphone nam nga yor mën nga installer application boo xam nga télécharger vidéo TikTok yi am benn filigrane maanaam du am logo buy wane ni si TikTok nga ko jëlee vidéo yooyu tamit nan ngay def ba def ci ay coppite ci wàllum image nan nga koy soppee ci wàllum son nan nga koy soppee ba nga xamante ni dangay am originalité nga mën a def sa ay compilation mën def ci YouTube soo waree monétiser doo am benn problème ci réutilisation de contenu parce que day fekk vidéo yi YouTube coppite yi mu bëgg nga def ko si def nga ko si coppite yooyu lañ lay wan étape par étape ni nga koy defee moo xam li valable ci vidéo TikTok yi mooy a defee coppite moo xam nga utiliser audio yi def ko ay genre podcast moo xam nga utiliser vidéo yi bu si nekk dañ la wan coppite yi ñu ci mën a def pour mën ko monétiser dinañ la wan tam canal YouTube boo xam ni par exemple day def euh, information par exemple euh, site internet tele yi wala yeneen nga am seen vidéo boo soxla nan nga ko mën a copier boo ko copier nan nga koy mën a defee ci sa euh, canal YouTube te ñoom duñu ñu xam ni copier nga seen vidéo ba mën la si topp loolu dinañ la ko wan par étape par étape. dinañ la wan tam vidéo WhatsApp yi nga xamante ñu bëri dañu jël ay waxtaan yi am WhatsApp di ko partager ñëpp di si jot am na ñoo xam ne waxtaan yooyu dañ koy jël di ko def di image di ko def ci YouTube. léegi léeg bu ñu demee ba koy monétiser dañu am jafe-jafe réutilisation de contenu ñooñu tamit dañ leen waxtaan yooyu boo koy monté nan nga koy defee ba nga xamante ni après boo koy monétiser YouTube du la wax am na ñeneen ñu ko dugal mais day nekk sa waxtaanu bopp boo xam ni YouTube day jàpp dafa am originalité pour mu la nga monétiser ko réutilisation de contenu nekk na loo xam ne nag yaatu na mais nag euh, ñu si bëri am nañ problème boobu ñu ngi jànkonteeg problème boobu waaye nag boo seetee du photo ñu si bëri ñuy utiliser am na ñoo seen propre vidéo la ñuy utiliser te dañuy am problème réutilisation de contenu ci kaw euh, musique de fond yu ñu ci def wala yu demee noonu YouTube indi leen si ay jafe-jafe parce que réutilisation de contenu YouTube daf ci joxewul information yu leer nañ ñi détaillé ko étape par étape pour nit ñi xam exactement lan la YouTube jékki-jékki na daal problème droit d'auteur moo doon tax nit ñi duñ mën a monétiser YouTube jékki-jékki un bon jour yokk ci réutilisation de contenu soo envoyé sa monétisation xool amul benn réclamation mais mu xool dëppale sa vidéo yi ak vidéo yi am ci YouTube su amee yu nduroo mun la noo doo ko mun monétiser parce que da ngaa utiliser contenu bu am ci YouTube te defoo ci ay modification defoo ci ay coppite yu tax moom originalité kasa yem fa jeex na loolu lañ la ci message bi mais loolu dafa vague dañoo waroon joxe information yu gën a précise ba pare dañoo waroon di def tamit suñ la waxee da nga def utilisation de contenu exactement ñu wax la vidéo yi nga xam ni moom la affaire bi concerné ce qui yow da ngay mën a vidéo nga def ci ay coppite wala nga supprimer leen automatiquement su fekkee du ñu wàññi sa 4000 heures nga mën a monétiser mais duñ ko def canal bi bu fekkoon daa am 1000 vidéo tamit duñ tam am benn vidéo lañ détecté réutilisation dañ lay wax da ngaa am réutilisation point final duñ la wax ban vidéo la c'est yaay nekk nag dafa di yéem xool parce que ñoom liñ ci jublu mooy yaa defar canal bi yaa ci def vidéo yi kon xam nga vidéo yi nga jël ak yi nga jëlul ak fi nga ko jëlee donc idée bi loolu lañ ci am mais loolu dafa indil ñu bëri ay jafe ci wàllu monétisation fii nga xam ne mooy Sénégal parce ñu bëri mën nañu def ay vidéo jàkkaarloo seen caméra def ay vidéo wala yu demee noonu am na ñu ko mën am ñu ko mënul ñu ko mënul nag dañuy obligé di def yeneen système te système yooyu ñuy def nag des fois YouTube dañu bëri dañ koy defandoo ce qui fait que YouTube day détecter vidéo yi indi la jafe-jafe léegi-léegi comme ni ma la ko waxee ñoo xam dañuy filmer mais son bi ñuy def mooy indi problème am ñoo xam dañuy copier copier bi am problème am ñoo xam ni dañuy euh, copier euh, vidéo mais vidéo ba fekk am na fond sonore bu ci nekk yëguñu ko moo leen indi jafe loolu yëpp boo àndandoowee ñu def ci nag formation bi nga xam ne mooy YouTube solution pour ñi nga xam ne ñëpp am nañ jafe-jafe boobu ñu mën a am enfin solution boo xamante ni dinañ leen ko apporter comme ni ma la ko waxee bu fekkee monétiser sa monétiser nga sa canal demander euh, monétisation YouTube nag da nga am réutilisation dinañ la wan te fekkee yow sa canal am nay vidéo déjà dinañ la woon yi nga mën a def ci vidéo yooyu pour tenter chance envoyé wat deuxième demande parce que bu fekkee vidéo yi dañu nekk sa canal pare YouTube ne la da am réutilisation moo gën a compliqué pour nga régler ko su fekkee nag par exemple tey donte am na ñaar am na ñaari solution benn solution mooy nga dugg ci canal bi am coppite yoo def ci vidéo vidéo yi nga xam ne amuñu 100000 vues parce que vidéo bu am 100000 vues YouTube dootul na nga ko def modification vidéo yi amul 100000 vues mu am na modification yoo ci mën def après nga envoyé waat mais nag am na beneen façon bi gën a wóor mooy. nga bañ a supprimer yi sa canal arrêté ko foofu commencé nag di dugal vidéo yoo xam ni for comme ni ñu ko waxee ci formation boo ko suivre ngay defee noonu vidéo yi di ko dugal soo demee ba nga xamante ne sa vidéo yu bees yi nga dugal am nañ vues bëri nga dindi vidéo yi daal di envoyé demande de monétisation bu ko defee dañ koy accepté sans benn problème yoon boobu mooy yoon bi gën a simple parce que bu dee modification yi léeg-léeg dafay boo nee da nga am vidéo yoo xam ne mën na cent deux cent vidéo nga bëgg leen topp ci def modification yi nga xam ne après dañ la woon bi pour réutilisation compte bi daan nekk ci client nga bëgg ko topp benn par benn des fois daf lay jëlal temps boo xam dafay bëri temps boobu nga concentré woon def vidéo yu bees mu ëpp njëriñ ba vidéo yu bees yooyu bu dee canal TikTok exemple canal TikTok dafay gaaw ay vues boo partagé day am vues yu bëri pour nga am 4000 heures euh, jafewul bu ko defee un mois rek boo respecté chaque jour nga dugal benn wala ñaari vidéo un mois mun nga am 4000 heures soo après demande de bu ñu la accepté ba pare vidéo yi njëkk nga dindi woon nag nga téléchargé leen denc leen avant nga leen di supprimer ce qui fait que après da ñëw def ci ay modification yi nga xam ne dañ la ko woon ci formation bi nga ci def dugalal leen sa canal YouTube ñu nekkaat vidéo yu bees yi soo dugg boo defee gën a accroître si li nga xam ne mooy sa monétisation li moo nekk vidéo bi nga xam ne doon nañ leen ko ñëw tey pour wax leen ko euh, muy euh, lancement formation YouTube solution formation bi dañoo jël suñu temps nag réfléchir si surtout si li nga xam mooy système de paiement bi parce que bu dee dëkk tubaab bi seen système de paiement yi def ñoom seen lépp dañ ko dëppale ak carte de crédit waaw seen lépp lu ñu def paiement carte de crédit ce qui fait formation yoo xam ne boo amul carte de crédit euh, mu am mën a télécharger formation doo ci am accès parce que il faut ñoom nga ñu def la page de page de vente bi il faut nga lire ko après nga cliquer ci bouton de commande bi mu yóbbu la bi nga pay à page de paiement bi transférer ci page de téléchargement après nga soog a dem télécharger formation bi pour mën ko li nga xam ne mooy mën ko seetaan ñun na xam nañ ni fii bu dee bu ko defee noonu ñu bëri duñ mën a participer ci formation bi moo tax ñu jël suñ temps réfléchir ci ba trouver système boo xam ni dina arranger ñëpp parce que du soxla carte de crédit système boobu lan la Orange Money la nan lañ ko defee ak Orange Money mooy dañoo fexe ba soo amee adresse Gmail bu mu mun ti nekk boo xam ne sa compte Gmail la way connecté wu da mën a am accès ci formation bi sa participation ngay envoyé ci Orange bi après nga envoyé sa e email bi nga xam ni adresse gmail la nga envoyé ko whatsapp ñu ajouté ko ci YouTube bi nga am accès ci formation bi jeex na ce qui fait que la amul carte crédit amul leen voilà boo envoyé sa participation par Orange ne après da ngay envoyé sa adresse gmail whatsapp ñu ajouté ko ci YouTube bi parce que canal YouTube lañ créé boo xam ne moom moo ñuy servir de tunnel de vente wala boog de page de téléchargement wala page de lecture lu mu si nekk noonu lañ ko utiliser ba nga xamante ni. canal YouTube fermé la privé la ñi nga xamante ni participé nañ ci formation bi seen email dañ koy ajouté ci li nga xam ne mooy canal bi ce qui fait canal YouTube day ni seen canal bu bopp la ñoom dañ ci am accès comme ñun niñ ci amee accès buñ ci duggee mën a seetaan vidéo yi ci nekk yépp mais duñ def mën a def benn modification ci canal bi duñ benn modification duñ ko mën def ci canal lu dul seetaan vidéo yi fa nekk te vidéo yooyu même boo ko seetaanee boo ko partagé keneen du seetaan parce que amul accès ci li nga xam ne mooy Euh, page bi en tant que membre canal YouTube boobu nga xam ni mooy YouTube solution da nga ciy nekk membre ku ci nekkul membre ak vidéo yi doo ko mën a gis loolu mooy affaire bi bëgg nga daal yow am nga euh, am nga daal problème mu réutilisation de contenu wala yaa ngi ubbi canal YouTube te bëggoo am problème mu réutilisation de contenu formation bi nga xam ne mooy YouTube solution ngay jéem a fexe am accès soo ci amee accès jeex na di nga mën a xam nooy defee contournement yooyu yooyu nag dafa nekk mbir yoo xam ni mënuñu ko wasaare nii ci euh, internet bi wala ci YouTube bi parce que ay contournement la yoo xam ni mën nga jël sax vidéo jàmbur boobu moom def ci ay modification utiliser ko te borom du ko xam comme loolu du lu ñu war a def ci euh, publiquement ci YouTube waaw moo tax ñu def ko formation boo xam ni ñi bëgg a régler problème boobu espécifique ñoom bu ñu ci participer dinañ xam nan la ñuy régler problème boobu boo ko defente ni mu nekk loo xam dina jëriñ ñi seen monétisation bloqué ñëpp dinañ mën a am solution pour monétiser li nga xam ne mooy seen contenu mën a sauter barrière réutilisation de contenu képp koo xam ne envoyé nga sa participation par Orange Money ci numéro WhatsApp bi nga xamante ni mooy 77 831 91 39 envoyé nga ji sa participation muy 12 mille francs après nga envoyé ñu sa adresse Gmail par WhatsApp bu ñu ko jëlee